jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu te di leen di jaajëfal la ginnaaw loolu nag dañ leen di ñaan ngeen teewlu vidéo bi ba mu jeex ngeen xam ne kii di Macky Sall ba muy wut lim fi def kii di Ousmane Sonko defagul lu ni mel te kii di président Macky Sall mayu ko jàmm benn yoon te kii di président Macky Sall bi muy wut 2012 lu ne def na ko loolu nag dañ leen ci indil ay firnde yi nga xam ne rek kii di njiit mi Macky Sall defoon na ko te ñam ko def la woon ñu génn wax nañ àndandoo déglu vidéo bi nga xam ne nii. moo waral coow li nañu àndandoo déglu. xam nga njiitu réewu Sénégal jëndal na ma jaasi ak kuur. looy wax ne Azoul. waaw moo ñu fekk ñu toog ci buntu kër gi. mu ne ñu ana seeni armo ñu génne ay <laughs> ay. instant mu nekk président. ah non non non 2012 premier tour bi mu jeexee. pa mu génn moom premier tour ba pare leer na moo war a dem deuxième tour mag Abdoulaye Wade ñun dañoo desoon këram ndax xam nga booy PDC dañoo say saay yàq rek la ñu def mu ñëw nañu bon. ana seen matériel ñu génne ay bantaay yi kenn xamul maag Moussa Ndiaye mu dem dugg si biir mu génneel ñu jaasi ak kóor nañu téye leen góor day yor arme mhm. jaasi boobu ba tey mu ngi fi ma denc jaasi njiitu réew mu ngi fii ma denc jaasi Mahmoud Sele mu ngi fii ma denc Euh, copain ma nekk la ma ne ko da ngay jël kóor bi man ma jël jaasi bi. jërë ngeen jëf euh, mbokki internet yi ñu doon teewlo ginnaaw kàddu yooyu nag ñoo ko bokk dégloondoo muy kaddu yi nga xam ne ni kàddu yu doy waar la ne gis nañ na kii di njiit réew mi Macky Sall jamono yi muy wut 2012 nii la nekkee woon ci réew mi di jël ay armo di ko jox ñi nga xam ne rek ñoo daan ànd ak moom. lool rek doy na ci firnge di ngeen ki nga xam ne rek moom lañ daan jël arme yi di ko ko jox moom moo yëkkate ay kàddu di le ne loolee lu wér la te lu am la muy li nga xam ne rek indi na jafe-jafe jamono ju ñu toll nii ci réew mi ne jamono ju ñu toll nii ci réew mi nag gis nañ ñi nga xam rek ñooy ay nervi ñu yor ay arme di ko dóor ci kaw askan wi te loolee nag buñ si waxul rek dina lo li nga xam ne moo di loraange ci kaw askan wi ginnaaw loolu tamit ñuy wax ne ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko ni mu nekkee nag jamono jile ni ñu bare bari ñu ngi koy ñaawlu ndax li ñu teg ci kawam askan wi ñoo ko waxal seen bopp ne loole nag jékkul jaaduwul benn yoon ginnaaw loolu tamit kii di Serigne Bara njaay nag jàppoon nañ ko balaa di koy yóbbu ndungu si na nañ ko jàppee nag ñu si bari ci askan wi loolee nag ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax.